transport Urosogi, j'ai euh, jafé yi bari nañ trop parce que euh, Urosogi, moy est ba gëna reuy région de Matam la capitale économique région de Matam fiñu tollu ni ni ni tembe en 2018 nous na fait une am équipe première division lu ko mooy ñu am au moins équipe deuxième division normalement en 2018 Ourossogui waroon na am au moins une équipe qui jouer dans l'élite sénégalaise c'est-à-dire une équipe deuxième division wala une équipe première division bon malheureusement euh, si si wàllum sport fi ci on euh, xarañuñ ci de trop parce que amna ñu ay de jouer joué Ourossogui euh, xalé yi sportif dans leur tête naturellement on n'est pas sportif par exemple à Matam ils sont plus sportifs que nous Matam boy même même ñi ci dem tool parce que bëriwuñu sax même même ñi ci dem tool suñu démé tool bu ñëw dañuy dem entraînement au sportif Ourossogui gi sokoy gis muy dem entraînement navetane 18 h nga koy gis muy dem mais dafa melni sax corvée nga koy yobbu dafa melni ne bëggul sax dem il va en les pieds lool moy problème bi donc euh, bu ko défé il y a un vide yenn boy yi bu ñu génnee école ñu japp jakarta ay commencé dawal yeneen boy yi suñu ki ñu dem mais problème bi yépp manque d'encadrement bi la rek parce que amuñu sax ay éducateurs en sport fii ñun amuñu sax ay éducateurs on n'a même pas d'éducateur en sport c'est-à-dire que boy yi dañuy dem rek dem dawi ji daw à gauche à droite di nga gis sax ay boy yu mënu football mais da ngay xam qui kii kenn encadré wu ko bu buñ ko encadré woon bu baax. dernier message que ñaan toute la population de Ourossogui en commençant par les plus âgés parce qu'il n'est pas question nit wax que rek man dépassé naa 50 ans affaire bi xalé yi ñoko mom moom dess des sama kër wax naa la ko léegi Dakar dem Saint-Louis Thiès ba Ziguinchor ay mag yu am 70 ans et plus ngay gis ci mouvement navetani. yi rek ngay gis président wu ASC bu am 25 ans wala bu am 30 ans président zone bu am 25 ans ñom xam nañu il était président de la zone Amadou Dia dina fi wax légui dem nañu ay dem nañu Orcave dem nañu fep mais dañ fay fekk leur aînés danañ fekk ñoo xamanteni dañ leen a mën jur motax motax ñom tax suñu suñu bëggé nax c'est trop facile parce que ay mag lañu xamnañu les rouages mais pour euh, sport Ourossogui mën a sukkaliku il faut que tous les anciens de Ourossogui ñoo xamanteni ni ils ont le sport wala dem nañu immigration ñu ñëw wut solution xalé yi dess ci force bi ñom ñu dess ci organisation bi